jotayam bu njëkk te yaatu galoba Ba gannaaw ban ko fale maire bu Mbàkke mu jagleel ko sëriñu daara yi jotaay bu am solo bu nga xam ni moom Gallo Ba génne na koppar yu takkoo takku jënd ceeb diwlin ak suukar jébbal leen galoba di wax ne lii ab tàmbali képp lay doon li def ji nag dañuy baaxantal ndax it maire Mbàkke dafa daan def waaye ñun bi ñu ñëw dañ ne lu maire yi génne

loolu moo taxawoon moo taxoon ñu dénkoon liggéey bi commission religieuse sëñ ji li ñu leen di félicité bu baax a baax ak ñi ci ñi ci nekk ñépp fas na yéen ànd ak yéen liggéey bi collectif bi fas na yéen tamit bañ yem ci lii dañoo bëgg it ñu xam seen ay jumtukaay wala seen ay besoins prioritaires li ngeen jàpp ne moom mënul ñàkk ñu defal leen ko ci juróomi at yi ñu jëm buñ ko xamee ñu taxawal ñu taxawal benn plan d'action également prioritaire naam ñoo def lépp ci juróomi at sax waaye at mu ne dañoo fas yéene am luñ jukki ci budget Mbàkke wala ci suñuy relation ci biti jëmale ko ci daara yi ñu xam yan action lay war def ñu ànd ko mu nekk action consensuelle ñu ànd ko ba pare déggoo ci su ko defé li ñuy def mëna am impact ci daara yi ba paré wa daara yépp gis seen bopp président de la république Macky Sall damaa toog ak mom defuma ci maire bi ñaari weer ne ko dama bëng nga recevoir liko sabab nak moy wa mbacké dañu am ci ñun yaakar mbacké dañu am yaakar ci ñun ñu fas ko and ak yawit bëgg li waa Mbàkke bëgg yépp naam lépp mënuñ koo saafara ci juróomi at waaye dañoo bëgg nga wane sa yéene fësal sa jëf ci waa Mbàkke ci wàllu lopitaal ci wàllu ay yoon ci wàllu daara yi ci wàllu école yi ñëw jën koo rénover mu nekk école yu baax yu méngoog jamono ci wàllu ci wàllu ci point yu baree bare bari kon nag état fa mu jàppale Mbàkke ni mu koy defee yeneen dëkk yépp

mooy ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi gën a collecter recettes yi ñu gën a fay suñuy droit pour mën a xaar suñuy devoir muy jëf ju nga xam ne jur na mbégte ju rëy ñeel sëriñu daara yi sëriñ Massamba Bousso wax ci seen kàddu kon sëriñ Gallo Ba mi nga xam ne nii moom la yàlla def mbir mi tege ci loxoom bi mu ñëwee gis na liggéey bi liggéey bu baax la lam fi mu dëgëral ko waaye dolli ci yëfi boppam kon loolu it Euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax ci turu daara yépp kon ñu ngi lay xamal ne lii de dal na suñu xel ndax ab tàmbali la boo xam ne ni bu am solo la fekkoon nga fi lu baax nga feddli ko wéyal ko kon loolu dafay mel ne yeneen yi nga xam ne ni ñu ngi koy yaakaar ci yow mën nañ cee dal xel euh, monsieur le maire nag dégg naa ko muy ñaan ak ñaan goo xam ne ni man amoon nañ ci moom yaakaar waaye dolli na ko ndax dafay wax ne maanaam yan bi yàlla na gën diis waaye mhm. yàlla téeñal ko kon loolu ku ñeme ay responsabilité moo koy wax kon yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla na ko yàlla gën a euh, maanaam kattanal ba nga xam ne nii lii lañ li ñu am ci moom ci yaakaar ci waa Mbàkke yépp am ci moom yaakaar yàlla gën koo dëgëral yàlla gën koo dimbale ba mën cee def loo xam ne dana ko njort kon daal ñu ngi lay xamal ne xëy na li ci lu ci bëree bëri ay question technique la yoo xam ne danañ fa ñëw toog ak yow ñu waxtaan ci li ci mairie bi mën a jaar ndax maanaam wàllu santé bi couverture médicale bi ak manam ay mbar ak yooyu ñu ma koy wax ku ci nek daanaka bi ñu déggee ne dañ ma dañ damay ma jël kaddu gi rek ku nek ci ñew ñew na ma di wax ay wan ak ay mar way yo yaakaar naa ay question technique la yo xam ni buñ jaaré ci seen jiili and ak mom ñew ci yow lu ci bëree bëri dañ ci mëna waxtaan ba li nga xam ni mo ci war maire bi mu def ci la nga xam ni mom la ci wara taxawu dara dara dal mi ngi lay xamal né talal na len loxo bayina len xel lepp lo xam ni nii ngoy def diko jëgal jëmale ci euh, ci éducation nañu xam ne daara am na ca wàll waras na ko ko jox suñ ko ko joxee mi ngi koy laaj suñ ko ko joxut tamit fépp foo xam ne nii mën na faa jaar ngir jot ko dana ko def kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax. laata jotaay bi di jeex galo Ba digub daje képp ku nga xam ni yaa ngi yeewoo Mbàkke ngir indi ay leeral ci fi nga xam ni foofee la fekk maire bi ak fi mu ko nam a jëmee ndaxte ay fan ci ginnaaw Abdou Mbàkke Ndaw jotoon na yëkkatee kàddu di wax ne bàyyi na fi ay koppar yu takko takku.